sénégalais yi pour que ñu mën di comprendre ñun ay député lañu représentant du peuple wax ngeen ni 2018 2019 def ngeen 165 forages mais aussi bëggoon naa xam 165 forages yooyu ci yenn département lañ ko def pour que nit ñi mën ko comprendre mais def chiffre rek jox indi ko ci benn euh, rapport wala ni def ngeen lii il faut ñu xam dëkk yi ngeen def forage yooyu noonu bu ko defee ñu xam ni fu ay député nekkee ñu xam ne député yi def yoolu dëgg la bu fekkee ne ko ñu xam ne da ngeen a lekk xaalis bi mo département Mbacke Touba fi may wax ak yow jamono Macky Sall ba fi may wax yow ñaari forage ngeen fa def ñaar ñaari forage Mbacke Bawal ga xamantene jamono jamonoy Senghor Abdou Diouf ba ci Ablaye wad benn forage mo fa nek dañuy fay ndox ta forage bu ndox mu nakar li Mbacke commune Mbacke ta dañuy fay ndox ma yakar ni war ngeen a wara war a xol sen programme aussi pour yeureum askan wi li nga xamantene moy mooy mbirum ndox mi si niveau Dakar ak banlieue bi amna ay bi wax tay ji rek maris dafa am problème ndox ma bëgg xam chaise bi nga xamantene ni remplace SDE est ce que mom bu ñëwee facture ndox yi dana wañiku est ce que ndox mi tamit dana mëna am dana mëna doy est ce que pour nit ñi mën sa jot mbirum assainissement de Touba nak mom lu grave la mom, lolu mom, président de la république ci bopam man wax naa ma wax naa ak mom mu xamal ma ne ma jox na ndigal yow wax ak xalifa général des mourides pour que assainissement Touba ñu saafara ko balaa màggal gi dikk mais seet na ne depuis màggal gi ba léegi ça fait daanaka 3 mois ñu des juróom-ñaari weer ñu war jëmaa si geneen màggal goo xam ne bi ñëw nawet bi lay tombeel te benn jéego bu ngeen defagul amul lu dul yéen a ngi si ay études jàpp naa ne il faut que ngeen gën a góorlu